combat yi fi jaar gouvernement bi war ñëw ndax du doon gouvernement de campagne électorale Macky Sall mi war a taxal bu yees bi anki dina kay nañu mi ngi ci tension bu mag ndax dafa am ci bii boor li mu bëgg moom Macky Sall am ca bee boor li waa kër Amadou Ba yi bëgg waa dëgg moo wóor li ñu bëgg mi ngi ci direct news parti rassemblement pour la vérité dëgg moo wóor di Pape Modou Fall ak ñi mu àndal yéen kay bi nee nañu nee nañ seen waxtaane ci Macky ci la jafandu ba léegi mode dépendance la Amadou Ba di def ci Macky ak réeroo am na ci biir parti socialiste ci Rufisque l'observateur nañu Abdou Karim Beng li ñu ko dégg mu wax keroog ne du parrainé candidature bu Amadou Ba l'observateur ne nañu ñeenti secrétaire généraux coordination yi ci Rufisque ak responsable bu jeunes yi ci parti bi ànd nañu def seenu communiqué bu ñu leeral ne seen camarade bii di Abdou Karim Beng li mu wax kenn nañu li secrétaire général bu parti socialiste Aminata Mbengue Ndiaye wax moom la ñu wax tey la ñu gën a wéral seenu bokk ci biir Benno Bokk Yaakaar tey jii ci lañu ñu gën a taxaw ci jàppale Amadou Ba mi candidat bu benn candidat beneen ci beneen yéenekaay Khalifa Ababacar Sall ci Vox Populi yéenekaay bi bind ne xalifa tontu nay bañam nee na duñu jafandu baa ñuy wékku ci yeewi askan wi ngir daganal suñu candidature moom xalifa Ababacar Sall teg na ci ne bu neexee yàlla dafay gagné élection présidentielle yi 2024 yi doon cinquième président bu Sénégal ci waxtaan yi ba tey wax na ci dialogue national bi fi amoon wax na ci coowal caisse d'avance li dundoon Ousmane Sonko Les Échos mi ngi ñuy xibaar ne ginnaaw bi ñu ko seppee ci liste électorale ay awakam demoon kalaame ji ko ci tribunal bu Ziguinchor ginnaaw suba ci alxames ji journal bi ne nañu ci la xam la ca tribunal bu di dogal ak ëllëgam moom Ousmane Sonko ci woowile wàllu suur sowaane nañu ma nga ci loxoy juge bi di Sabassi Faye Sabassi Faye moo jiite woon tribunal bu Koungheul ginnaaw bi ñu jële woon ko fa ci weeru mars yu weesu yóbbu woon bras de fer ndax ñoo ngi ko bëgg a def ci jamono jooj candidat yi bëgg a bokk ci élection présidentielle yi bari nañu journal las di ko dëggal ba dañu xamal ci xët bu njëkk ne samedi ji di ñëw ci la rentrée parlementaire bi waaye nares na fa gis pinc mu jaxasoo lo bu gaz total yi fu ñu jëm ak moom libération mi ngi ñuy wax ne la ca xew du jàmm scandale ndax bu weesoo gaz bi kalaate woon ca dexkale ba yóbboon fa juróom-ñetti bakkan ci diggante bi nemmeeku yoo xam ne nee nañu lépp ci lo 28 bi